ndax mbokk yi rawxaan dafay lu am doole ci nit loo xam ni bu fekkee nit ki jàpp na ko ba xam ko te foosewut mooy mi ngi mel ni ñu localisé la rek xam ni yaa ngi barab sàngam yaa ngi kër sàngam yaa ngi ci position sàngam nit ki nag mën na koo foosé mën na jàpp ni lii la fekk du lii loolu moom moo ci ëpp sax nag waaye nit ki bu lim jàpp ni moom nga boo ko doonee tam xam nañ koy jëfandikoowee lépp mën na koo xam waaye seet du rek li ab lem laag yaa ngi bëgg sa bopp ngi yëkkati koo <laughs> comme yooyu ñu miin loolu moom leneen la meneen mbir la waaye mooy consultation nga def binaa xam li nga jaar lan la ak li nga jëm fi nga toll fan la ak li nga jëm sa kanam lan moo lay xaar ak bu fekkee dafa am problème yan solution mooy mooy solution bi ci misaal kii barab bi mu nekk dafa tàng température bi dafa yéeg wala tey kat météo bi dafay wax ni degré bi dina dem ba quarante nangam léegi na sol lu woyof rek te bu dee këram mën naa am clim mu am ko boo am mu am ko loolu ay solution la bu fekkee ni gis nañ day sedd mu sol lu diis bu mënee am surface wala mu mën am loolu lay jariñ mooy nga xam li ci sa kanam nga xam ban sarax ngay génne wala yan couleur ngay jëfandikoo wala yan cuuraay wala yan parfum wala sax ci nit ñi ngay jëfandikoo yan façon nit wala booy déplacé ban côté nga war a jëm yooyu yëpp xam-xam mayee na ko ndax tubaab bi ñoom yegg nañ ci ngay jug ubuntu mu tijjee ko waaw nga taxaw <laughs> ci jaww ji am lu lay yóbbu nga bëgg dugg ci géej gi dugg fi loolu xam-xam nangu na waaye ñun ba léegi dañoo toog fi ñu toogoon rek naan yàlla baax na yàlla baax na wala di xaar yàlla te yàlla ñëw na bu yàgg ñun ñoo fi toog di ko xaar bee ñëw na bu yàgg mosu fee jóg kon xam-xam dañ ko war a jëfandikoo xam-xam nag maye na yooyu yëpp nga xam comme mën nañoo xam jant bi kañ lay fenk xam kañ lay suux xam weer wi kañ lay fenk kañ lay suux xam suuf si lu ci ne nga xam ñaata vitesse lay daw fan lay toll bis sàngam ca 2020 nangam wala bi sàngam lay doon wala nangam lay doon day niis wala day taw comme yooyu yëpp mën nañ koo xam loolu mooy kon doomu aadama li muy dund ak li ci kanamam lu ci bari mën nañ koo xam donte am na loo xam ne xëy la mbirum yàlla la mais am na loo xam yàlla da koo xamal da koo xam te mu nekk luñ mën a xam loolu nag mooy jafe-jafe yi nga xam ni suñu borom dafa wax ni zaharal fasaada fil barri wal bahri bi ma kasabata ay dinaas ak